Euh, soxna maam Awa sëriñ Abo euh, ñu ngi leen di nuyu lu bari ci turu daayira nafsi wa diini sëti seex Muhammadul Basiir muy soxna yi nga xam ne ñoo ànd takkoo nekk benn fa séenee liggéeyal seen maam soxna jaara euh, ñuy ñëw nag tey di indi asakay yéene lu ñu xeeb lool waaye ñu bëgg na ngeen ñaanal ci barke soxna jaara ba lu ñëw tey bu dellusee fulu ba doon ay junni junni junni euh, lii ñu andi nag asaka yéene rek la euh, muy ceeb bi nga xam ne euh, dañoo bëgg soxna yi nga xam ne nii dañ fay nekk li seex Mouhamadou Mountakha di wax ci xam-xam di jàng ñun ñëpp ñu war a takk suñu digg laxasaayu ñëw ànd ak yéen ci liggéey bi te sunu borom dogal ñu nekk ci yeneen di liggéey ya nekk ci yeneen ndigal euh, moo tax li ñu indi asaka yéene la mi ngi toll ci lépp. 11 tonnes 875 kilos muy asakay suñu yéene nag di àddee ci soxna jaara ñoo ñëw jébbal leen ko nag sëriñ Abo ak soxna maam Awa ak ñii nga xam ne ñoom lañ fi nekkal tey ñaan yu yàgg leen fee fekk te ñaan euh, li ñu bëgg yéene ko suñu borom defal na ko yéen ngeen ñaanal ci ko bari soxna barke soxna jaara wér xéewal ak mucc. ba lépp lu ñu yéene liggéeyal soxna jaara yéene ko liggéeyal Cheikh Mouhamadou Bassir ñu man ko defe ko ni ko bëggee kenn ku fi teew nag teewal nga ñëpp amul nag kenn sët yëpp la nag sëti ma Mouhamadou Bassir yëpp nag ñoo ci maase ndax soxna yi ñoo def daayira bi te jotiwul ak daay euh, addee Cheikh Mouhamadou Mountakha loola it waxtu wu ne at mu ne dañ koy joxe dañuy joxe addee joo xam ne moom xalifa bi lañ koy jox waaye ceeb bii moom ci daara yi soxna jaar ji la jëm muy sunu asaka yéene kon sant bu baax di ñaan yéen itam suñu borom may leen wér ak xéewal ak sutura ñu yàgg koo fekke te yàgg ànd ak Seex Mamadu taxaa yàgg ànd ak moom liggéey bi ba lépp lum mu yéenee liggéeyal maamu mu defe ko na mu ko bëgg am ci ko la ko wéy njortam tamit ànd koog moom. lii ñu andi nii des na ndax euh, ñi nga xam ne nii ñoo nekk fi ne Ndakaaru Ndar wala feneen. Euh, seen àddee mi ngi ñëw.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 Daaru Minane Express ak Serigne Mountakha Mbaye lépp lu ngeen ittewoo si wàllu décoration plafonnage barab bi moo ca gaaw mbokk yi Daaru Minane Express ànd ak Académie Minane ci màggal Porokhane édition 2020